kilifa gi ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay. tur bi naka la. Mamadou Gaye. Mamadou gannaaw ba ñu déggee information rek ne dafa am benn bébé boo xamante ni dañ ko sànni fii ci sa buntu kër ndax mën nga ñëwalaatal ci mbir yi exactement rekk naka la fi demee. waaw ça s'est passé euh, avant-hier très tôt le matin benn femme moo fi romb bon il a entendu des cris xamul woon lan la quoi moom foogoon ay muus muus ay muus ñooy jooy quoi. mais quand elle a regardé de près bon compte que euh, kii la euh, benn bébé la benn bébé bu ñu fi sànni quoi automatiquement elle a frappé à notre porte pour nous avertir ci la ñuy génn bon constaté comme ñëpp que ni bon c'était un bébé vivant avec son placenta bon surtout après ci la ñuy informé waa sapeur pompier ak waa police ñu ñëw def la nécessaire bi nga gisee bébé bi xayma bi ñaata mois la am walla ñaata fan. bon c'est c'est il était avec son placenta hein waaw euh, cordon ombilical bi fii la ñu ko daggee waaw c'est c'est les par pompiers qui l'ont traité ñoo dagg kii bi après bon nettoyé bon bon mais nag c'est un bébé qui a été avant que ñu koy déposer fii ah parce que femme bi accouché wul fii xam naa dafa accouché ailleurs ensuite indi ko fii quoi teg ko fi. ndax solaloon na ko yére wala noonu la ko sànni noonu la ko sànne woon noonu la ko sànne woon ñun ñoo ko ñoo ko muur ak benn kii quoi ak benn linge waaw pour le protéger du froid c'est ndax mën nañ xam bébé bi ndax góor la wala jigéen la. góor la góor la góor la góor la waaw góor la. genre yu mel nii daf fiy faral di am lu bëri wala mu ngi fiy soog a xew. c'est la première fois c'est la première fois mosuñu ko loolu mosuñu koo gis fii ko c'est la première fois. bon c' est peut être ay 6 heures du matin xëy na peut être waaw parce que c' est vers 7 euh, heures 8 ko gis quoi waaw donc bon ça a dû se passer bon une heure boo xam ne kenn kenn romb fi quoi waaw heure heure booru 6 heures daal xam naa ne ci la ci la war. fi mu ko sànni dafa am mala yoo xam ne ñu ngi fii ay xaj wala yooyu. non elle a fait a a pris la précaution indi ko fii sama buntu kër. waaw parce que bu ko sànnoon ci àll bi bon peut que bon. mala yi daañ ko kii ko daañu ko gis bon mais xam naa ne bon elle voulait court que court que ñu gis ko waaw moo tax mu sànni ko fii waaw. d'accord ba léegi bi mu amee jotagu leen information ne yaayu xale bi teg nañ ko loxo wala jotaay su leen ci dara. non non non pas du tout amuñu ci benn information tout ce qu'on sait c'est la xale bi ma nga ma nga kii hôpital fa la ko yomb Youssou Mbargane waaw c'est tout. d'accord gis nañu euh, mbir yu mel nii li muy am ci li nga xamante ni moo di ci réew mi bëri na tey ba amoon message booy lancé jëmale ko ci ñun jigéen ñi tey ban message lay doon. Ah, message mais kii de mooy bon être plus euh, kii rek responsable. Mhm. responsable parce que bon on ne connaît pas de cette femme la mhm. waaw parce que bon peut-être qu'elle a eu des yàlla daal moo xam vraiment ce qui l'a motivé ba mu sànni doom. parce que sànni jur doom sànni ko neexul ko waaw mais boo ko defee nit bu ko defee rek xamal ne peut-être am na loo xam ne lu ko lu ko lu ko kii quoi ko. ah la même chose que ñu fi taxawoon ñëpp quoi waaw la tristesse yërëm xale bi. Mais heureusement que bon, il est, il est, on l'a retrouvé vivant. Okay. On retrouver amputé, kii xaj laal ko ko laal ko yooyu quoi mais heureusement qu'on l'a trouvé vivant. waaw bon bien sûr merci. bi maa ngi lay nuyu. maa lay fay soxna si. la. Laasana. Laasana ndax jot nga fekkee xew-xew bi nga xamante ni moom moo fi xew démb muy bébé bi nga xam ne moom lañu fi sànni. waaw xew moom fekke ma ko mais ku xool vidéo yi rek sa yaram day daw waaw parce que lu metti la daal du doy waar parce que Sénégal moom insin toon yi moom gaan maam maam gis gi gis yi moom day gën di yokk rek ndax moom saa yoo xëy da nga gis loo xam ne gaan da lay gën a yéem rek waaw d'accord tey gis nañu genre yu mel nii li mu fi am nekk na loo xamante ni lu bëri la maanaam jur doom daal di koy sànni eh, loo xam ne fi mu nekk nii bari na fi muy li muy am ci réew mi eh, tey boo amoon message boo xam ne da nga koy lancé jëmale ko ci eh, askan bi tey ban message lay doon rawatina suñu mbokku jigéen waaw message bi moom lenn lay doon rek mooy xale jigéen gën a xam seen bopp rek parce que nit ki nga toog sa kër ba jigéen ba góor fekk la fa takk la nga jural ko doom moo gën a moo gën a logique fu nga wuti caaxaan parce que tey jii am na yéen yoo xam ne am na acte yoo xam ne boo koy gis si réew mi parce que nit koo xam ne danga ngaa ëmb fi nga war a ëmbee da nga koy jur fi nga ko war a juree mais boo ëmbul fi nga ko war a ëmbee da dem juri jóg foo nga ko war a juree. maanaam loolu lu mu seen bopp parce que tamit nit jigéen mën a jékki-jékki rek ëmb noonu sans dara comprendre te ñi ñi ëmb di sànni yëpp du ay borom jëkkër ah ay célibataire la ñuy doon kon téye sa bopp ba yàlla may la jëkkër xam nga nga dem sëy ji am fa ay njaboot yu barke moo gën quoi man loolu laa gis li may ñaax nit ñi parce que xam nga dund gi léegi métti na métti goo xam ne boo xool si sa sa gëm-gëm xool si nga juddoo xool xool sa culture rek dina la mettre mettre si yenn danger yoo xam ne doo xam ne foo koy waxee parce que kii toog fii nii euh, jur fii nii lu ne mën na ko cee fekk ak jur nu méttee nga jur kenn assisté wu la yow kese d'après que ñun li gis moom loolu lañ mën a wax moom kese moo fi nekk ndax ki ki ñëw indaale àndaaleeg lépp nga ba ko fi dem kon xam nga ne kooku amul kenn ku ko dimbale. maanaam bébé bi defaruñ ko laxasuñ ko defuñ ko. waaw amul dara loo xam ne amul leen loo xam ne mën nañu mën nañu sàng sax fekk nga ko ci waaw loolu noonu xam nga tey jii bu noonu moom yàlla moo ko dimbale sax mais mënoon na see ñàkk bakkanam xale bi tamit mënoon na see ñàkk bakkanam waaw mais daal nu ñuy ñaar daal suñu mbokku jigéen ñi daal mooy ñu téye seen bopp régler xam nga xale yu góor yi moom gars dañ lay wax dañ lay wax ba am luñ bëgg si yow après duñ la sax di jën xam nga kii tey jii nii bu noonu tey ki ki ko ëmbal tey jii par exemple bu noonu tey jii di ko jël responsabilité xam nga di ko conseil di wax ak moom di waxtaan ak moom di dem ak ay rendez-vous. parce que nit ki moom boo xasee ba jigéen moom damay gis ne jigéen moom bu ñëwee na yaa mu ëmbal moom même bu newul yow tamit war ngaa mën a mën nga war ngaa mën a am benn grandeur boo xam ne même bu nekkul yow nga xam ne du carrément yow war nga koo mën a suturaal xam nga dimbale ko dimbale ko ba mu ba mu accoucher dans les normes. booy dem nga def sa test sax nga def sa test parce que tey jii bu demee bu xale bi juddoo boo demee def test bu nekkee sa dere la yoon yi xam dara moo gën bu nit ñëwee si yow am ci yow yaakaar bàyyi ñëpp ñëw ci yow même bu nekkee newul yow sax war ngaa mën am benn grandeur boo xam ne dimbale ko soutenir ko ànd ak moom xam nga ba keroog muy am ba yàlla may ko boppam léegi nag looy décider nga soo ko décider quoi mais. ma déggee ci say wax mooy yenn saay xale yu góor yi dañuy dégager seen responsabilité. waaw bien sûr am xale yu góor yoo xam ne dañuy dégager seen responsabilité parce que du ma blâmer jigéen ñi rek mais damay balaame góor ñi aussi tamit parce que tey jii mënoo di nga nekk ak jigéen xam nga jigéen xelam matul yaa ngi dégg nga di yëy yuuram di yëy yuuram ba am foo yegg ak moom ba yàlla dogal li muy dogal xam nga nga bëgg a nga bëgg a dégal say responsabilité loolu jaaduwul nit dangay maam lépp loo xam ne ñëw na rek dañ ci ànd ak ki nga xam ne moom ko seexal parce que fii góor gu nekk rek nañ wax ne dëgg rek góor gu nekk bu jigéen ñëwee na yaa ëmbal yow sa yow sa jëm bopp rek war xam ne yow la wala yow ay ay ay man la benn yoon laa def ak ñaar yoon laa def yooyu yëpp ay deuxième la nit bu ñëwee ci yow wax la yow war ngaa mën a xool say sa say maam parce que jigéen ëmb newul da ngay jékki rek ëmb débarqué ñëw ëmb noonu ku lay déclaré ëmb soit dana am naa deux mois wala am naa trois mois wala am naa une semaine yow góor gi boo ñëwee defal say analise bu nekkee mas ngaa def ak moom rapport nga xool man at euh, jour bi ma tëdd moom wala jour bi ñu def nii est lii war na cee mën a xew avant ngay dégager wu quoi nga xool boo xoolee ba xam ba jëf say ba mu leer na kii lim la wax ni ak heure bi mu la wax ak temps bi mu la wax ak weer la wax bu doon da ngeen a seq sa rakk ci am doom même tamit bu loolu demee ba nga xam ne yow du yow mais bul jékki-jékki rek dégager ses responsabilités woo ko mu ñëw nga naxtaan moom waxtaan ak moom parce que jigéen xelam motul. parce que xel ñàkk xel bi mat moo tax ñu la koy muur di la ko indil guddi bu doon daa xelam mat na kenn la jékki-jékki rek indi la ko noonu nga ànd ak moom dem mais bañ na ba suñ la koy muural sax dañ naan la jigéen xelam matul yaa koy suturaay affaire yooyu noonu waaw ñun góor ñi tamit war nañoo mën a changer tamit changer tamit changer tamit affaire bi quoi parce que. bi nga gisee bi nga gisee li nga xamante ni moo di bébé bi ak ni nga ko gisee nii mu nekk góor nañ ko juree ñu daal di koy sànnee noonu laxasuñu ko suturaal luñ ko si benn côté lan nga yëg. waa métti rek man borom kër la am naa doom xam naa lu ci doom waaw am naa doom te sama taaw góor la te bu mu maa mu nekk xale bu góor war a tey jii nii xam nga mën a dem fu ne war a mën a war a mën a jënd réew mi lu ne war a mën a apporter suñu réew lu ne. tey jii nii melokaan bi melokaanoo nii ku ko fekkee tey jii nii xàmmee xale bi xool ko di ko topp di ko topp ba tey ba mu doon ba doon kilifa bu taxawee na man an sama bappa wala man ana sama yaay lu ñuy wax xam nga loolu dafa naqari si xool ku sañoon rek xale góor bu euh, bébé bu sañoon da ngay juddoo fi nga war a juddoo te tamit aussi tamit boo juddoo ba pare nga xam kan mooy sama yaay ñu ne ah diw de kii mooy yaayam wala yow sa jëm bopp sax nga màgge sa roon yaay màgge sa roon parce que maam liir même bu xamul bu waxul sax doomu aadama bu nekk ba juddoo loo ngay ñaan yàlla kenn ñaanu yàlla di juddu di nekk ay circonstances yoo xam ne doo gis sa papa parce que tey ji koo ci gis rek bu demee ba màgg ba am li muy njëkk def rêve am mooy njëkk lam lan lay même bu amoon àdduna li ci biir bu amoon xaalis bay tuur li muy njëkk a xalaat mooy nu may def ba gis samay waajur ak fu mu mënti nekk day def fexe nu may def ba gis samay parents kon ñun ñun góor ñi wala ñun jigéen ñi war nañoo mën a moytul xale yi xale yi ndaw yi ñuy am genre problème boobu noonu waaw parce que dafa bëri mi gars ko théâtre yeneen ci nit ñi lu ne def nañ ko mais ba léegi day gën di yokk rek waaw. d'accord merci beaucoup. ok.